xam nga saison bi ñu jàll nii pour man saison bu ñu metti la xam nga lu tax mu metti mooy saison boo dem stade sa arène ba nit na fa àdduna saison bi mënul neex si yow saison boo xam ne tey euh, affaire violence am na fa di sànninte ay wala di defante dara man de du neex si man man li ma bëgg si làmb mooy ñëpp dem ak jàmm ñibbeek jàmm combat yu bëri jaar na fi neex na lool waaye bu ñu amee ku ñu ñàkk muy xale bu baax dëkk pikin mu génn àdduna may jaale waa Pikine yëpp loolu lu ma metti la loo xam ne wax dëgg yàlla mënoon na ñàkk moo taxit pour man saison bi saison bu metti si man la parce que bakken kenn mënu ko remplacer maa ngi koy jaale papam di ko jaale képp ku dëkk pikin di ko jaale ñëpp parce que xam ne daal bu dëgg yàlla lu ma metti la moo tax saison bi man vraiment combat yi nit bëgg nañ ko lool neex na mais daal man loolu ma ci metti moo tax du ma ci mën a wax daal si année bi. <coughs> enseignement par rapport ak saison bi nga xam ne moom la ñuy waaj waaw il faut ñu tirer si ay renseignement comme que làmb balaa muy ubbi dina am réunion il faut ñu xool ku nekk la nga war a taxawee si làmb nga taxaw ko parce que làmb ji léegi doo xamee amateur bi doo xamee analyse làmb ji xameetoo entraîneur xameetoo communicateur ku nekk li nga lu su soo yoon nekk rek yaa ngi siy dugg te loolu aussi day yàq. ku nekk da nga war a am foo yem kii war a yem communicateur mu yem si communicateur amateur bi yem place amateur ménager bi yem place ménager promoteur bi yem place promoteur defe naa loolu bu amee ku nekk fu cër gi nga am si làmb nga yem si defe naa ne coow lu am dara du am mais bu dee chaque jour ku nekk yaa ngi laal foo warta laal day indi problème te amul sens nit ku nekk cër gi la yàlla jox si làmb jàpp si nga xam ne yow cër bi la yàlla jox si làmb nga def ko nga jéem a doxal lu làmb avance mais communicateur bi day wax yoonam lu yoonam nekkul si amateur wala lu yoonam nekkul si mbër ma keneen wax lii keneen wax lii boobaa amatul sens ku nekk nga dugg foo warta dugg te nit ku ne da nga war respecté ku nekk nga yem fi nga war a yem loolu buy am nag si làmb ji def naa ne dinañ gën a mën a waxtaan sécurité bi aussi ñu gën ko renforcer gën a mën a wax ak mbër yi si daan yi gën a mën a wax ak supporters yi aussi aussi mu am lu metti parce que tey mbër mi nga xam ne dafa ànd ak supporter am xamul ki mu àndal am na ñoo dañuy rax si mbër mi supporteru mbër mi yàq dara nga bëgg tiire xaalis bi si mbër mi mais ka ka ka nañ ko jàpp yóbbu ko yoon loolu moo ëpp solo ñuy tiire xaalisu mbër mi parce que mbër mi xamul mu àndal ak ku mu àndal nit mën a dem bokk si mbooloom te xamu ko du dëgg dem yàq. bu ëllëgee nga tiiree mbër mi cinq cent mille wala six cent mille day métti il faut ñu xaman ne war nañ jël ay nit teg leen ci kaw arène bi ku yàq ñu dem jël la wàccee la bu dee dañ lay teg si yoon ñu teg la si yoon moo gën parce que stade bu mel nii arène bu mel nii ñu am ko di ko yàq la mais waaw satisfaire nañu parce que combat yi tey boo xoolee indi na tey. Reug Reug war a bëreeg euh, Sa indi na Franc mu am combat gis nañ tey euh, mbër yu mag yi jeex nañu si kaw il faut mu am mbër yu ndaw yu leen fekk si poids lourd yaa ngi ñëw pour yéeg bu fekk yeneen mbër yi loolu mooy wane làmb ji macha allah ñu ngi góor góorgóorlu di avancer li am solo aussi yenn xale yi nga xam ne aussi yàlla may na leen public ñu mën bëri il faut ñëpp di bëri ñooñu bu ñuy bëri. làmb ji dina gën a neex parce que am na promoteur yoo xam macha allah dañuy créer ay xale di tëgg ay yenn làmb yi te day fees dell stade arène day fees dell gis nañ ko ci promoteur yu bëri donc ñooñu ñëpp dañoo war a góor góorgóorlu gën a jàppale xale yi pour xale yi yéeg. mën nañoo jàppale daal bëriwul parce que aussi làmb yu neex am na làmb am na fi Ibrahima Mar am na fi dem am na fi foofu arène nationale donc làmb ji neex na man daal comme li ma la wax rek li ma si metti rek mooy ku ñu am si année bi mu jénn si àdduna si biir arène bi loolu ma si gën a touché moo tax yenn yi du ko mën a wax. dañ doon gis aussi ngeen di naqarlu ay waaw billets yu seer xam nga tey euh, làmb dafa seer euh, ñun aussi il faut ñu xam suñu poos yi ak lu ñu mën ak lu ñu mënu bu ñu toppee promoteur bi tëggal làmb bi tëggal làmb bi promoteur bu dem jël xaalis bi du jeex pour tëggal làmb ci mais da nga xam ne làmb yi il faut du yomb te gis nga ne léegi sponsor amatul des fois aussi yéen sax des fois pour ngeen dugg pour filmer day am problème du dëgg kon nag loolu aussi mooy ne làmb moo ko laaj day metti promoteur il faut mu def dara si ngeen teg benn télé wala benn site def PPV pour moom pour am si dara donc te lu ñun yi. chaque jour ma wax man pay-per-view neexuma pay-per-view damay gis ne souvent amateur dañuy woote naan ma jënd naa mënuma wax seetaan mënuma def lii mënuma def lii mais comme promoteur nee na ñoom foofu la ñuy amee xaalis mu leen gën a ñu abonné benn télé télé ba lañ fi am du bari pay-per-view ma donc kooku tamit kenn mënu si dara il faut ñu comprendre loolu xam ne yéen euh, promoteur bi tamit dañuy investir pour am dara. léegi ñu dugg ci gestion arène ci mel ni ay lamp yoo xam ne nii dañu koy fay avant lamp bi di jeex mu mën a indi accident yu jotoon nañ si xam nga tey euh, lamb ji li problème bi amul gestionnaire amul woon directeur donc bu ñu namee woon directeur arène bi bon dina am nuñ koy doxalee mais bu fekkee ñee ñoo fa nekk ba léegi yaa ngi dégg am na heure boo xam ne dañuy fay lamp yi. te aussi am na ay temps yoo xam ne euh, courant day coupé groupe bi du kii il faut promoteur bi louer groupe indi ko loolu aussi frais la woon yuy metti mais comme ministre des sports aussi dañ koy doon gërëm muy Matar Ba daf ñu dafa doon maye promoteur ba ngeen louer stade bi donc ndax frais yu metti yi ak bu ñu jógee si commune bi beeg yooyu yëpp metti na donc mu def loolu moo tax arène bi aussi il faut ñu comprendre. moo tax nag loolu aussi bu ñu si jógee ci ministère bi amatul. donc bu mel ni ah, waaw parce que parce que jaaduwul parce que tey arène mënoon nañ prévoir groupe parce que jamono moo ko laaj jamono moo laaj lépp loo xam ne nii defar nañ ko war na am groupe sécurité war na am groupe war na am caméra surveillance te caméra surveillance am na fa. donc yooyu yëpp war nañ ko fa def defal fa groupe boo xam ne bu ëllëgee courant bu coupé mu mën a tàkk parce que ni arène bi demee la